Salam alaikum yi ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam maa ngi présenté Ngom nekk chargé de mission du ministre Oumar Gueye membre de Sa premier vice-président euh, di wax ne aussi président du mouvement CCEP Mais cadre de concertation pour l'émergence de Bambilor Nous sommes nag dama bëggoon ñëw pour waxtaan ak askanu Bambilor ak Sénégal bitim

mon moo nekk di manipuler certaines personnes pour à ce que nous dal ci kawam ma leen arrêté wax ne ministre Omar Gueye ni ci yooyu amul temps boobu c'est un ministre de la République et ku ko dégg ci fulu nga koy ak ci fayda et d'ailleurs un ministre boo xamante ne nii à 7h30, demie boo demee di nga ko fekk ci place place liggéeyam à 22 h ou 23 h boko owe birom ding ko fa fek kon donc koku amul temps wu nek fi di nek ci ay ginnaw nit di len monter benen bi moy aussi tamit mu ngi ci ginnaw liguey bi nga xam te moom ko président de la république sante à tout moment il est en train de faire un sillonnement à travers le Sénégal pour donner de bons résultats kon di len wax ne révélation yoy ñuy wax nan arrêté que ngeen Diop arrête parce que nous devons être ay 10 disant ces partisans di génn ci médias yi di le ministre dit n'importe quoi mais nous nous sommes de Bambilor et ceux qui l'ont dénoncé des problèmes ils sont de Bambilor sàmm sa bi dénoncé exclusif ñëw na fi télé yépp mais de par sérieux exclusif mom mo fi li nga xamantene la population bi révélé Sall Diop def émission exclusive ñëw na télé nañ fi ak ça veut dire que ils sont légal de ce qu'ils font ils sont positifs kon donc bi daf ils sont corrompus Nous nga ils sont corrompus wax leen ne leen génneel ma lii ñu génneel la ko kon exclusif li fi am lay génne Bambilor mosunoo inventé benn information information bu fi am ça veut dire que ni population bi ñoom ñoo révélé wu ñoom ñoo révélé wu mu génne li nga xamante ne moom mooy euh, euh, euh, lii seen li li li actualité kon donc te ñi nga xamante ne ñoo koy def ñëpp Bambilor lañ dëkk dans la commune de Bambilor lañ dëkk droit s'il y a problème qu'ils le sentent nous révéler s'il y a des choses à révéler nous ko ko population bi disco. Quand ko kon nous ak nous Nous ci fi donc pour à ce que le ministre de la République Oumar Gueye ne ci kenn nous manipuler mom na arrêté na wax ñi nga xamante ne ñoo jël seen lamine diko tek ci deram ñu arrêté ndax ñëpp xam nañ ne tay ji par exemple ni fii ci commune bambilo s'il y avait il y avait des problèmes problèmes yoyu jeex na à tout moment le ministre est en train de de le de le de le rassembler ñu bokku ndey bokku bay récemment juboo nañ bokk ndey bokk ba ñom ñëpp ñu joxonté ay loxo te lii discours am benn la bo len ko setlo di ngeen ko vérifier lepp lu mu am ci politique tey jii ak nu mu mënti mel ci politique c'est grâce à Omar Gueye kon donc du tay du sétane ay nit ñukoy ñukoy ñukoy ñukoy ñukoy ñukoy sanni ay trac ñun ñu taxaw alerte ñoo koy alerter te incha allahu rabbi bu mu tax nak ñu dugg ci combat bi au fond na wax ak ay nitam ñu taxaw bàyyi li nga xamantene ni mom la ni def s'il veut des promotions ou bien des buzz qu'il le cherche ailleurs mais pas sur le ministre Oumar Gueye maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp salam